léegi ci góor ñi nga xam ne tamit nu métier environnement après xale yi jigéen ñi comme diwut ñoo xam ni euh, ñoom ay jeunes la nii ne mais mag ñi ñoo leen di intéressé ñu leen di wax jigoro ñoom ñoom tamit lan mooy seen àtte ci lislaam euh, mais loolu loolu jarul laaj mm-hmm. jarul laaj àtte baa ngi fi suñ demee ci demi mm-hmm. euh, maire maire mm-hmm. ak fu ñu mën a dem bu ñu njaaloo rek ñu duma ba léegi àtte njaaloo mooy bu ñu njaaloo rek ñu duma leen ak fu ñu mën a dem bu ñu njaaloo ñu duma leen gis nga euh, bëgg Bàmba nit dafa war a seet la muy bëgg sëy yi tas fim mu ne ni mu bëree li ko indi yëpp mooy bëggal li ko indi yëpp mooy xemmem ndaw si dafa bëggal góor gi mais góor gi dafa xemmem ndaw si problème. ndaw si li góor gi yor ci xaalis la bëgg. fàtte na doom. góor gi ni ndaw si mel la topp xemmem ko. fàtte na doom. te innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa. jëf yëpp mu ngi aju ci yéene. nekk yéenewul doom may nañ ko ndaw si ndaw si may nañ ko jëkkër. sëy nañu ba am doom yu bari mais yéene doom ci sëy ba xale yi amuñ fuñ taxaw mm-hmm. amuñu ko dañ leen war a yéene ci sëy bi man kat kii may dugg mm-hmm. defe naa bu ma ci duggee am doom ju baax kii ne man de kii may dugg mm-hmm. defe naa bu ma ci duggee am doom ju baax voilà su doom doo rek baax te ci gis kenn mënu ko atte ñi nga xam ne dañuy alteeru entrainement dem seeti jigéen eh, ñu fay la nga tëddee leen loolu lu muy jëriñ ban njëriñ la amul njëriñ amul njëriñ parce que itam sa ndox dana dem sa doole dana dem sa yiw dana dem ñëppay dem lépp dem dem kon nga fexe rek wuti jabar daal moo gën soo ko defee def ko ci jabar maire bi jabar la yow jëkkër nga waaye bu fekkee ne moom day jabar kii di jëkkër baax na waaye anam anam man ana yow baaxul hmm? léegi léegi léegi léegi ba léegi dinañu ñëwaat tamit ci euh, laaj boo xam ni xëy na mësoon na fi ñëw waaye ñëwaat na muy lu jëm ci wàllu takk suuf ndax am na oustaz bu ni dafa arab jàngee nañu ci yéen macha allah ci jàngale yi ngeen di def ni bokk na ci chartu sëy euh, yaakaar naa ay takk suuf ak takku kaw loolu nekkul ci yi nga xam ni mooy farata bi nga xam ni moom la ñuy soxla ci tàkk bi. li ustaas bi wax ne dafa xaraam. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. Mm-hmm. ustaas bi ne takku suuf dafa xaraam. Mm-hmm. kooku wax dëgg. ki ne dagan na kooku day fen. maa la ko wax. xaw ma kan la nag. ki ne xaraam na. kookoo wax dëgg. wa nikaaw sirri. ko muqaddima bu ndaw bii mu ngi ci. doo yéeg fenn muqaddima rek ngay dem. nikaaw mutxa mu nga fa. sëy bu am délai daganul. sëy bu ñu nëbbu daganul. sëy boo dagan na ma may la sama doom. man ak yow rek waaye bala nga faa dem mu wutal ko seede. dagan na nga ñëw ma may la ko rek nga dem mais bala nga faa dem dama koy uutal seede. yow nga toog ma voilà ma wax leen ne seede leen ne may naa diw mii sama doom sàngam. wa illaa sëy ba buñ koy def mbooloo toog seede ko. jeex na waaye yow kot. ndaw si kot. kenn yëgul daganul. li ko bi waxee dëgg de sëy balaa dagan dañ koy siiwal ba ñëpp xam ne may nañu diw diw mu doog a dagan waaye bu loolu amul daganul voilà jigéen juy jaay boppam kooku day njaalo ah te njaaloo day njaalo su amee jëkkër rey su amul jëkkër téeméer yar mooy àtteem jigéen ju nekk ci dëkk di njaaloo su amul jëkkër téeméer azaniyatu wa zani fajlidu kulla waxidin minhuma mi ata jalda téeméer ya rek su fekkee nag amul jëkkër su amee jëkkër nga xam ne jëkkëram a ngi dund muy njaalo ñu jàpp ko ci condition yi sariya wax ñeenti seede ñeenti ñu maandu ñeenti ñuy jullit ñeenti ñuy gor bokk ñu koñ buñ jógee ñoo doxandoo ba gisandoo ko awraam ci awra bi awra góor baa ngi ci biir awra jigéen ji su boobaa ñu yëkkati ko àtte ko su fekkee matul ñu duma leen ñoom ñett boobaa dootul ñu duma noonu déedéet ñi ko jiin dañuy duma dafay lu yàq nit. dafay lu yàq nit moo tax lu yàq nit bala nga ciy dugg amal lu leer. amal lu leer.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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax